mbokk yi nee naa leen bu dekkee ca waruloon bëre tey waaye adversaire Thiatou Ndakaaru moo ñëwul moo indisponible Fouta woo ju bu sa Ketchup bu ne ko dinaa ñëw sauver journée bi loolu am na solo bu sa mi ma gis dafa mel ni ku yàkkamti bu sa Thiatou Ndakaaru dafa doole defal ndànk arbitre sifflé na bu sa Thiatou Ndakaaru combat bu nar a gaaw waa lii la waa Boussa lu muy def nii waa lii lan la Boussa ñëw na Boussa taxaw na waaye Boussa génn na saaku yi waa Boussa lii lan la waa Boussa lii la man Boussa lii la Boucher nag ñun waxuñ la nga sobe combat bi di arrière ba combat bi jeex waxuñu lool de bu ñu fontoo lañ la wax. Boucher lii lan la Boucher nee na daan na <laughs> waaw. <laughs> waay waa Boucher fu jëm waa Boucher eh waa Boucher jeex na Boussa nee na jeex na Boussa nee na jeex na. am na avertissement Boussa am na avertissement waaye waaye lii musuma koo gis man tey laa jommi man ko tey laa